asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 12 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi muy sunu lamb record les échos wala Leewtoo TV fu nekk daal ay xibaar xëy na fa tey xibaar yi nag yenn xibaar la parce que boo xoolee ndax docteur Alioune Sarr ak digganteem ak arbitre yi coow li nga xam ne nii moo ubale réew mi rap ka cay wax nag mooy mbay Guèye premier tigre na faas moom daal la mu jàpp na na Alioune Sarr xalaatul ci àddina naan day dellu ginnaaw ci li nga xam ne def na ko ndax moom ne na xam na waa ji bu baax a baax dellu ginnaaw moom du am ne na kenn ci man dara mooy Matar Ba maanaam daal moom moo mën a régler mbir yi nga xam ne nii moo judd ci làmb ji di coow loolu mooy wax ki nga xam ne nii moo di mbay Guèye mu mel ni ba tey bu mu demee sax ci record itam mu nga fay waxaat moom ki nga xam ne nii moo di Mbaye Guèye ka nga xam ne mooy Kati Diop tamit wax na ci ak Malick Thiandoum ku nekk daal yaa ngi ci indi li nga xam ne nii moom moo di sa gis-gis ñépp daal wax nañ ci Saliou Diouf tamit jiiteeg ñi nga xam ne ñoo di amal daamu bi mu nga cay wax de moom la mu jàpp daal ne na kii di Alioune Sarr moom nag xam ne làmb ji du lu mu moom tey itam nag taam dafa jeex dem dong la war a def bàyyi nag suñu làmb ji nu continuer waaye dàq yi moom waru koo mën a sax xalaat ba di ko def ay nit moo tax nag Saliou wax lu mel ni ki doon bu nu fa nga xam ne tamit moo di ca Leewtoo TV waa wax nañ fa de góorandoo it la xam ne ne daal Alioune Sarr moom dem dong la war a dem ndax nag mbir dañoo jàpp ne lii muy doxee ni du yoon te nag mu juróom benn nga jiite benn affaire na yow rek yaa koy jiite di ko doxal ku wax nga rëq ndigam ne na loolu moom du xel tey suba waxi noppi mu mel ni ki nag coolo la am moom ba tey ci sunu lamb bu ñu fa delloo am na koo xam ne ci wàllum yoon lay yëngutu di ab juriste moom la mu xam ne daal nee na rajo moom ñi nga xam ne nii mooy docteur Alioune Sarr ak waa CNG bi mënuñu ko def arbitre boo xam ne dañ ko nommé par arrêté nee na loolu moom yoon nangu ko tey suba waxi noppi mu mel ni kii nag ñañu rajo moom ñu nga fa nga xam ne nii ba tey moom mooy ca les records di fa wax ñoom arbitre daal démb moom daje nañu waxtaan la ñu nar nag mooy conférence boo xam ne bu rëy rëy lay doon conférence de presse waaye itam akub mars ñoom si door daal ne nañ ñoom bàyyi duñ ko def tey suba waxi noppi ndax nag olof a koy wax ku bàyyi ëpp xët mu nàcc moo tax ñu ne ñoom du ñu bàyyi xët mi muy nàcc mu loolu daal moom fi mu nekk nii ca lañ taxaw ba tey ñu nga fa nga xam ne nii moo di leese ko ñoom daal la ñu fas yéene daal mooy defante ak Alioune Sarr ba mu saf saf danañu defaat conférence de presse bu rëy danañu mars ndax nag mbir yi moom ne nañ ñi muy doxe duñ ko ni bàyyi muy continuer si doon mbuur nag yemu ca ba tey buñ delloo suñu làpp moom ne am na koo xam ne da koo ndax ci seen biir la bokkoon nekkoon seen kilifa di xalifa sow ñu daan ànd ak moom di liggéey ne na tey position ba mu jël ak fa mu taxawe moo tax ki nga xam ne moo di si moom ne na xalifa moom bu amee ku ma bet ci at mi ne na du kenn ku dul ki nga xam ne nii moom moo di Khalifa Sow loolu la Sitor Ndour xëy wax tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb mu mel ni ki nag bu nu continuer ba tey dem a record rek daa mel ni fi mu nekk nii coowal arbitre la moom am na leneen coow loo xam ne mu ngi ci maanaam ñàkk bëri gi nga xam ne moom la mbër yu mag yi ñàkk ay combat kañ ca tànn nag moo di Modou Lo nga xam ne mooy roi boo xam ne daa mel ni fi mu nekk nii daal liy xeeñ bu continuer moom bëre du ko def muy loo xam ne lu doy waar la moo tax mbay Guèye nag ma waxoon ci sunu làmb ne ne na kon loolu mooy wane ne làmb ji di ci kiris ci la nekk mu mel ni ki Kati Diop tamit ñàkk bëri roi des arènes googa moom daa jàpp ne daal kon lii upp fi nekk nii de du doon lu neex Malick Thiandoum Thiandoum itam di ab journaliste nekk ca E-Média moom Malick Thiandoum ne na kon jàppal ne day mel ni ci loo xam ne daal togg nañ ko ba pare waaye xorom sa moom day manqué maanaam roi des arènes bi bëriwul mu mel ni ki daal kon loolu moom itam mu nga ca record waaye dañ fay jóge ba tey nun nu continuer ba ci làmb ji ak ñi war a bëri dimanche bi nga xam ne ni ca lañu jëm muy ki nga xam ne moo di gàmmu géy ak soq ca production jaar ka cay wax nag mooy bàyyi ngañ di ab entraîneur nekk ca yoof bàyyi ngañ day nee ki nga xam ne nii moo di gàmmu géey moo ëpp technique soq loolu mooy ki nga xam ne nii daal moom mooy waxi bàyyi ngañ loolu moom ay waxam la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb waaye bu ñu continuer ci sunu lamb combat boo xam ne taxaw na ka ko taxawal mooy Sidi Jaxate Sidi Jaxate nag moo taxawal diggante ki nga xam ne nii moo di fils de Samba Diaw ak Arobas combat ba nag le 12 avril lay am yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax ñu lu mel ni ki mu mel ni ki fi mu nekk nii daal coow moom mu ngi mel ni tulle ak màlle waaye ba tey soq ak gàmmu gi bañ leen waxoon sàng daal ba tey ay xale nga ca Leewtoo TV di fa waxante muy ka nga xam ne moo di mbañi kayre doomi booy kayre Jacob Balde doomi Zil Balde ñoom itam la 15 mars bi di dimanche la ñuy bëri spécial ca soq ba gàmmu gi ñoom ñaar nag ku ne yaa ngay tëkku sa morom doomi mbër la duma doomi mbër mu mel ni ki ñu ngay defante defante boo xam sab na sab balaa combat ba waaye leer ba leer moom tey am na ku ñëw ne leen ko ndey ku ma faal waxe woon tey yaay paate ñëw na ay sa fay ñëw na yàgg maar yàgg itam ñëw na ndax daa sibir woon la wax waaye dem na hôpital xool nañ ko masàlla mu ngay tane waaye ay sa ahlan wa sahlan lañ lay wax dalal ak jàmm soyez les bienvenus doon la ko bi waxee bu ma juumee ngeen jéggal ma. salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal ma leen di wax namoon naa leen trop namoon sama càmmiñ bi namoon internet yi nga xam ne ñuy suivre Leewtoo TV ma leen nuyu bu baax di leen ziar Babacar la. Aïssatou Faye madame Niang yaay Paate maa la kon na mën na lay nuyu di la ziar la ñaanal jàmm ah di la wax ni la ahlan wa sahlan rek comme ni ñu koy wax dalal ak jàmm. balaa muy duggaat ci français yi ñu di ma reetaan mais loolu ci mën a dégg daal daal la jàmm lañ lay wax parce que tamit namoon nañ na trop comme ni ñu ko waxee daal mm. macha baax a baax a baax waaw Babacar ma leen fay di rax maa leen raw namoon ñoom yàgg maar équipe Leewtoo TV naa leen bu baax di mm-hmm. dellu si waat ak yéen mm-hmm. dellu si si revue de l'arène bi nga xam ne ni moom lañ leen tàmmal mm-hmm. mais damay nuyu sama fan bi mooy Ndeye Coumba moom moo fi nekkoon euh, weer yëpp daal baax macha allah tey Babacar dañuy ñëw tombeek ak yi nga xam ne ni mooy coow li nga xam ne moom la ñu muy coow arbitre ak euh, CNG arbitre yi nga xam ne rajo euh, nañ Sitor daal di euh, suspendre ñoom Malick ak Babacar mais arbitre ne nañ jàpp ni rajo nañ leen ñoom ñëpp parce que solidarité mbir moomu waaw solidarité de daa baax maanaam bu fekkente ne rajo nañ leen ñu gis tey ñoom ñu génn taxaw ñoom arbitre yëpp wax yaa ngi dégg fas yéene def conférence de ak marché yooyu ñoom ñëpp ñu solidaire ànd olof nag moo ko wax ñu bokkuteel ñooy laxasoo ay goj yaa ngi dégg lu ma lay wax benn bi ci des nañ bi tax xati mooy mbokkam ndax ñoo mbokk bi yéen uh-huh. kon nag comme yéen a bokk loolu lépp dafa naa ne euh, te goone ko lu gudd na mais loo ci laal morom ko yaa ngi dégg euh, loo ci ko yaakaar naa boo laalee kii da ngay laal kële dañ aw askan boo ci teralee kenn teral boo ci toroxalee kenn toroxal nga ñëpp xëy na kon ñoom la ñu loolu la ñu jàpp ba tax tey ñu génn ñoom ñëpp ne dañuy solidaire ci ñoom ñëpp ànd nekk benn bolok ñañ aj ak ñañ aju ñu bokk nday bokk bàyyi xeex xeex bi parce que jàpp nañ ni du lu jaar waaw muy loo xam ne tamit lu doy doy waar na daal ay Babacar mu mel nii coow di jeexagul parce que kii di Mbaye Guèye moom ne nee na lu mu xamee Alioune Sarr mooy du bàyyi parce que kenn moo mun a tax tey jii sentence bi changé muy ministre des sports waaw bu dee moo mën a tax mbay gii day dama naan lu mu wax tey ci làmb moo xam da ko wax ci ñi jiite làmb wala ñi amateur ya ku mën a doon yaakaar naa bu ci waxee bu waa autorisé lay doon uh-huh. war na cee wax parce que lu mu def ba bàyyi la encadré ay mbër ñu ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaan bépp doomu aadama bu waxee nag nekk li mu xamee Alioune Sarr du bàyyi ministre bi rek moo ci mën a effectivement dañ naan ministre bi pour man situation bi moo a décanté mm-hmm. parce que nag bëri bëri bëri bëri muy Alioune Sarr ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi yor ay kuréel ci làmb ministre bi moo leen coiffé jiite leen jiite sport réew mi mm-hmm. kon yaakaar naa bu coow jógee ba yegg fenn fi moom Matar Ba tamit par rapport ak nu ñu ko xamee ñun ci disponibilité war na mën a nag wax ak fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñooy ñooy ay njabootam ku ci mu jëm la teg ci aw yoon pour que mbir mi ñu mën ko arranger jàmm continuer parce que dama naan ñi ñu dàq ci man néew ma nit des ko dàq de nit man nañ koo dàq. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais xëy na ci façon bi lañu ñu baree baree baree baree àndul façon bi mu demee nii yaa ngi dégg parce que ñoom am nañ expérience yàgg nañu foofu te am na lu ñu servir li nga xam ne ni moom mooy làmb. Mm-hmm. kon yaakaar naa daal ministre Matar Ba noonu ko mbay ngay waxee na ci dugg régler situation bi mu féete boor quoi mm-hmm. waaw. waaw tam ba tey Babacar kii di si tool moom euh, am na waxtaan bu yaatu. ak ñi nga xam ne ñooy waa sunu lamb si toor nag moom li muy xamle mooy am na koo xam ne ni nag moo ko ciy gën a ko décevoir bu baax a baax a baax a baax. loolu doy na xalifa xam nañ ne moo jiitoon commission centrale arbitre yi. Mm-hmm. tey defe naa ñu ko mu nekk directeur technique euh, fi nga mooy lamb ji. Mm-hmm. kon xëy na foofu muy waxee mooy comme ñoom ñoo bokkoon corps arbitral bi yàlla di ci ne si sa biir liggéey ci lañ apprécier ba yokk sa ay yokk ba tey mu nekk directeur technique. Mm-hmm. xëy na dafa jàppoon ne bu xeex bu mel ni amee day solidaire seen côté mais nag loolu mook àddina ànda xalifa tamit nañ nañ ko nangul gis-gisam nit ku ne da nga sa gis-gis mm-hmm. yaa ngi dégg nekkul ne rek xëy na lu ñoom seteeru xeex moom am na da ca war a ñëw dugg xeex ko non man du parce que nit ku ne am nga démocratie sa bopp am nga droit choisir la nga bëgg a choisir comme moom dafa jàppale fële la bokk su ànd na ak ñële d'accord waaye xëy na moom ah day jàpp ne xëy na la na may loxo wala nangam nangam mais nag xëy na loolu moom ay droit am la am na droit far ko bu ko neexee itam dinañ bañ cee wax mm-hmm. mais lu ci mën a xew daal xalifa far ak ñoom wala mu bañ far ak ñoom loolu du sens bi li am sens mooy ñoom li ñuy wax ndax yoon la est-ce que askan wi ànd nañu ak ñoom pour man loolu moo ëpp doole bi des quoi mm-hmm. waaw Babacar ñu jógee si coow loolu dem seeti ki nga xam ne tamit mooy Modou Lo Modou Lo war a bëre ki nga xam ne mooy Ama Baldé fu mu toll nii combat bi ñu naan dina amam du am ba tey moo lëndëm si bopp nit ñi euh, record ñëw tey waxtaan si ak ki nga xam ne ni mooy Mbaye Gueye waxtaan si ak euh, Kati Diop waxtaan si tamit ak ki nga xam ne mooy Malick Thiandoum ñoom nag ñu ne tey jii bu combat bi amul dina am lu mu wàññi lu bëri ci li nga xam ne ni mooy làmb ji Aïssa Faye moom lu la waaye mën a wax hmm? at ñu bëreem at roi des arènes toog année balance loolu hmm. ku ne xam ne du neex làmb ji day daal di manqué lu bëree bëri ndax roi des arènes saa yu ne ñu ngi koy jongante rek enjeu bu bëri lay indi ci làmb dana gën a dundal làmb kon defe naa nag bañ ne combat bi taxaw na ñëpp dañoo tàcc ne alhamdulilah la ci dug duggaat ci muy promoteur ba ñu arrêté ko muy Luc Nicolaï ñu ñaan yàlla fa mu ne mu génnaat fa ñu koy nuyu bu baax a baax moom Luc Nicolaï di nuyu ah lu gën na lu baree bare luy manqué loolu càndum wax kati Diop wax ko mbay gi wax ko mooy li am su defee année balance moom dina nekk lu doy doy loolu tam moo lay wan ne làmb ji rek mu ngi ci ay jafe-jafe ah dina xëy na am na foo xam ne wax nañ fa ne nekkul ci mais li tax ñu ne bu bu may wax sax ne na nekkul ci jafe-jafe xëy ci yenn côté yi bu ñuy bëree am na ñoo am chaque dimanche combat dina mais xëy bu ñu ci kaw problème am na fa ndax bëriwul mais tey bu Modou Lo bëriwul Eumeu Sène bëriwul Balla Gaye bëriwul Gris Bordeaux bëriwul rek ñoom Tapha Tine bëri yooyu yëpp def année balance wax dëgg yàlla nday yow Aïssa day mel ni daal lu daal ah, dañuy jógee ci combat boobu noonu Babacar dem seeti di nga xam ne mooy war a dox si diggante kii di soq ak euh, Gamou Gueye 2 ñu daal di ñëw ci analyse technique yi nga xam ne ñu ngi koy def ñi kii mun a ngañ mu ne bàyyi ngañ mu ne ki nga xam ne ni mooy euh, Gamou Gueye moo gën a technique Sokh mais Sokh mu ëpp doole waaw bàyyi ngañ foofu la waxee moom daa jàpp ne côté technicité mu ngi ci côté gàmmu gi waxee doole ji mu ngi ci soq mm-hmm. bàyyi ngañ nag entraîneur la nekk écurie Yoff mm-hmm. yaakaar naa mu itam su waxee comme na ma ne gis na Yoff actuellement ci dox bi ñuy dox mm-hmm. kon moom yaakaar naa athlète waru ko a nax waaye nag daf ci am yoo xam ne des na ko natt fekk na mu am waroo tuuti nekk yaa ngi dégg euh, ñaari mbir yëpp am nañ doole gàmmu gi bu ñu xool ci poids am ba ne amul doole wala poids de forme am non non maanaam nekk na mbir mi nga xam ne ni fausse maigre la bindam ak ni mu mel du mbër mu yor poids bu bari yaa ngi kon xëy na foofu loolu laa ko fay dolli soq itam tam ma d'accord ci que ni bëreem dafa des non non non te parce que soq bëri bi doon bëri kon moom itam mbër bu mën a bëree la mais dafa am foo xam ne poids boo xam ne soo ko yoree doo dootoo moom sa yaram ci benn mouvement bi waaye loo ci mën a dégg daal jàppal ne dimanche moom la 15 incha allahu rabbi daa gis làmb ju neex na arène nationale Sidi Diakhaté tam Babacar ñëw na ak combat pour le 12 avril. Mhm. muy ki nga xam ne nii moom moo di fils de euh, Samba Diaw ak Arobas. yaa dégg ca Thiès la 12 avril mhm. tonton Sidi ñu koy nuyu borom Thiès mhm. ñu koy nuyu Diakhaté Kaba Yéri kenn du moom Sidi Diakhaté maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. waa kër li lañu andiloon tey ñi nga xam ne ñooy suivre seen revue de ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bëggee Leewtoo TV di nuyu sama borom kër di nuyu sama yaay di nuyu samay goro samay njëkke ak ab képp koo xam ne rek am di jàmm nga aasi di nuyu ki nga xam ne mooy Ndeye Kumba chez Ramos ah ñu leen nuyu bu baax a baax di nuyu nogay ba ci Italie ak borom këram Babacar di ñaan tamit euh, li nga xam ne ni mooy feebar bi nekk ci àdduna bi yàlla teggil ñu ko parce que dëkk bu mu laal rek mun na laal ba ci des ñu ñaan yàlla rek mu daal di koy saafara ci nu mu gën a gaawe ba ñi nga xam ne ñoo fa nekk surtout suñu mbokk yi nekk Italie yàlla sàmm leen muccal leen euh, musal leen ci li nga xam ne ni mooy feebar amin Aïssatou Faye wax ñaan googu nga tëje moom laay commencé moom laay tëje man tamit mm-hmm. mooy lan que nga xam ne ñoom ñoo nekk Italie nekk Chine France ak fu feebar bi man a am ba ci Sénégal gii ñu ne ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal ñi mu dal te deewuñ yàlla ñu wér ak jàmm ñi ci dee yàlla leen yàlla yërëm àddina yàlla moo tuuli noonu ay mbiram ki mu xëy nga jox ko mu lekk jox ko mu naan ngeen waxtaan nga génn ñëw ñu ne la mm-hmm. moom mooy dogal mbir mi dana dal ay nit am na ñoo xam ne ni deewuñu ci am na ñoo xam ne jóoraat nañ bay doxe ne ay sénégalais lañu nekk wax ne ñu ngi suñu seen ginnaaw suñu mbokk yenn Italie ñoom Serigne Diour ñoom Balla Gaye taalib Serigne ak ñoom Mbacke Kebe ñoom ñëpp ñoom Ramos ku fu ci waaye mën a ne Baye Sall jëng Paris ña nekk Chine xam nga ñoom bës doo doo mën a yàgg maar ñëpp ñu ngi leen di nuyu fu ci sénégalais mën a nekk rek waa Arabie Saoudite ak fàttewuñu kenn mais nag di nuyu tamit Ndeye Coumba Fall comme ni nga que fan at weer yëpp ñun ñoo doon toogandoo fii mm. mu nekkoon lu neex a neex a neex mais nag dañuy wax ne rek àddina moo tudde noonu Aïssa bu ngeen xoolee revue bi ñun ñoo ko doon defee moom yàlla indi dara ci moom mu dem toog benn temps dellusiwaat na parce que loolu mu la tubaab bi wax ne nii ne parfum ku nekk rek mën nañ la remplacer ci sa place nday ku ma itam toogaay bi fi toogoon vraiment internet yëpp apprécié nañu macha allah parce que dañuy lire commentaire yi gis tamit liggéey bi nice na trop di nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy équipe bu Leewtoo bi yëpp rawatina suñu DG Thialis ak tonton Diaw ñoom Biram Yàgg xam nga Massar Sow ay Diouf taal bi suñu Babacar Si képp ku fi mais di la nuyu di la wax tamit kani rek macha allah xale bu yaru nga comme li may wax rek xale bu yaru nga macha allah kon museñaa daal loo gën a téye ay sa doyul yàlla leen yàlla musal ci cat ak làmmeñ waaye nag bul fiir del dem sa xel fiir dina yàq lu baree baree baree bëri di nuyu suñu doom jooju suñu jarbaat paate fay yàlla na ko yàlla def magum lislaam daf ko mag mu am ñam barke yonent bi di nuyu tamit tey ki nga xam ne nii mooy Mor Diouf borom Petersen moo fi jaar ci solo bi ah maa ngi koy nuyu di nuyu la ñamal bi daa rafet de waaw ah, lii mooy sama rakk jooju Roqee Ndaw di nga ñam Rimka parce que xam naa mooy nekk numéro un moo yor si sa door ma ko fàtte xam nga ndax ma koy nuyu chaque jour. Mm. ku ne maa la bëgg.